semaine ngi nii ñu lënkaloo ñun ministère urbanisme logement ak hygiène publique ak ministère de l'environnement et du développement durable ci ndigalu président Macky Sall mu ne ñu boole leen seen doole ngeen setal ndakaaru ak réew mi mais aussi ngeen jëmbat garab fépp fu nga xam ni voie nationale voie voie publique la mais aussi ngeen dindi bépp oto bu yàqu bu yàquwul bu gaaree ci mbedd yi pour que nit ñi mën a am espace bu rafet mais nit ñi aussi mën a noyyi ndaxte ndakaaru dafa dem ba ñit ñi mënatuñu noyyi liggéey boobu nag danañ ko def bu soobee yàlla commencé nañu ko commencé nañ ko ci anam yu rafet commencé boobu nag wax dëgg yàlla président sas nañu waaye muy man muy Abdou Karim Sall muy ñi nga xam ne ñu ngi ci suñu direction yi ñun rek attanuñu ko bu ko askan wi bu ñu jàppalewul doxal ñu ko seetal ñu ko surveiller ñu ko suñu liggéey bi ñuy def day neen comme que bëgguñ liggéey bi neen nag ñu bëgg ñun ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi président yéene Ndakaaru yéene ko Sénégal amul kenn ku ko attan moom rek kenn ñun ñëpp bu ngeen ñu jàppalee ñu yenn lu ko ñu ku ci nekk toppatoo sa gox toppatoo sa dëkk mu set wecc dañu liggéeyal suñu bopp dañuy liggéeyal président Macky Sall mais suñuy doom ak suñu sët ëllëg lañuy liggéey moo tax ñu kontaan ci semaine bii ñu lancé semaine de désencombrement ay juróomi téeméeri oto ñu jëlee ko ci mbedd Ndakaaru bi ñu lancé journée mondiale de l'environnement ñu def ko ca gore man ak suma naataango Abdou Karim Sall ñu gis fa lu rafet gis fa liggéey bu rafet gis aussi lu nga xam ni def nañ ko pour protéger les aires marines côtières loolu itamit mu nekk liggéey bu rafet biñ fa jógee ñu ñëwaat alxamis ci guddi man ak Abdou Karim Sall meddu Ndakaaru yi ci avenue Malick Sy rond bi ba ci aéroport Léopold Senghor ñu jëmbat fa ay garab ku fa romb tey da nga kontaan ci ni mu setee ak ni mu rafetee mais lim set set ak li mu rafet rafet man Abdou Karim Sall ou bien waa Eaux et waa cadre de vie ou bien waa UCG mënuñ faa nekk guddeeg bëccëg population yi fa nekk ñoom ñoom moom liggéey boobu ñu aaral ñu ko lu ñu gis lu nga xam ne waru faa nekk bu ñu ko mënul arrêté ñu wax ñu ko ñun ñu arrêté ko parce que mission bi ñu jox suñu réew la ñu liggéeyal président Macky Sall lañ dënk réew mi ñu koy liggéeyal waaye suñuy doom la ñuy liggéeyal suñu avenir la ñuy liggéeyal moo tax ñun ñëpp ñu war koo sàmm bañ ca paree tey ñu wër Dakar presque région Dakar bi yëpp di xool naka la ñu defee bésub setal bi nga xam ne président de la République moo ko institué laaj ñu ñu def def ko ci réew mi yëpp ak ci gox-goxaat yëpp loolu nag bi ma ci àggee ma gërëm li ma doon di gërëm tous les jours waa UCG UCG fierté la ci réew mi fierté la ci Sénégal gis nañ fépp fu ñu taxaw seen taxaw bu am vraiment amut suma kàddu bu ma ci mën a yokk parce que engagement détermination patriotisme lépp ñu ngi koy gis ci seen présidence ci mbedd yi mais ma gërëm itam waa direction cadre de vie commencé nañu léegi di génn ndànk-ndànk commencé nañu léegi di génn ndànk-ndànk et ma bëgg ñu rattrapé waa UCG fii ak ay weer yu néew ma leen di gërëm ñoom itam wax dëgg yàlla ci liggéey bi ñu def en parfaite synergie mais loolu ci ministère bi la mais gis ngeen ci semaine bi ngeen gis tenue eaux et ngeen gis volontaire yu nekk ci grande muraille verte ñëpp ñu lëkkaloo direction de l'environnement et des établissements classés kenn mënul ràññee ku nekk ministère bi ak ku nekkul ministère ba la loolu nag mooy gouvernement loolu mooy réew mi gouvernement dafay marqué solidarité te loolu la ñu président digal loolu nag bu ñu ko amee tey ñu war cee gërëm bu baax président Macky Sall ndaxte lépp lu fi am te maire wax ko may gërëm itam maire yi parce que muy fii muy caaro yi muy golf muy bépp maire bu ñu romb xamme wuñ maire bu nekk opposition xamme wuñ maire bu nekk ci nguur gi ñëpp d'accord ni li Macky doxal ci Sénégal zéro déchet li Macky Sall doxal ci euh, Sénégal vert ñëpp gis nañ ci seen bopp Sénégal yëpp tënku ci gis ko te loolu la ñu war a gën a rafetlu